mën naa laaj kii. day temps bi dab nañu. temps bi dab nañu lañ ko leb ba lëndi. ba lëndi ba lëndi dafa dafa mos a wax ni. Rouba Rouba Seye ne veut plus travailler avec lui. loolu bëgg naa aussi tamit nga leeral ñu ko comme. comme jot la non non Rouba musta wax loolu. Mhm. Rouba musta wax elle veut plus travailler avec moi. Mhm. donc c' est man arrêté naa Ramadan. Mhm. aw ma beneen produit bu ma ko soxlaa. Ah. léegi avant may ñëw ci émission bi rek woo bi ñu toogee bi ñuy kale moo ma woo di ma laaj ndax. mi ngi ci bouquet canal wala TNT. Mhm. donc on n'a pas de problème. <laughs> on n'a aucun euh, association des artistes comédiens de Grand Yoff. et c'est elle mhm. donc maa ngi koy saluer li may tàggatoo waale mooy di sant di gërëm ñëpp. Mhm. Ah, di di di gërëm euh, la famille Mbodj suñu famille bi nga xam ne moo nekk xar yàlla. di suñu benn sœur ak njabootam Yacine Diallo. may gërëm suma goro bu jigéen bu góor muy mhm. Mamadou Sène ak euh, soxna baabu cees gërëm mhm. suma soxna Fari ak samay mhm. doom di gërëm peuple Sénégal yëpp di sant monsieur Sow parce que apporté na ay éclaircissement ci pour man sax musique rek la <laughs> spécialisé wu mais li mu wax ci ñun suñu domaine franchement kenn mënu ko culturel pur et dur di la sant Yves ñoo bokk nekk Afrique Multimédia. Afrique Multimédia suñu PDG ñu ngi koy euh, nuyu Djibril ah. Diop ñu euh, euh, di nuyu madame Soxna si. Zeyna Zeyna Zeyna Bamba père <laughs> l'invité de. Astou de Mbaye <laughs> ah, ak ak ak Mbaye la caméraman ak suñu invité le uh-huh. di nuyu peuple Sénégal yëpp di nuyu commune bi ma jógee fi ma dëkk mm-hmm. dafa yeewoo muy la commune de Grand Yoff mm-hmm. xaar yàlla ci bokk ci commune bi voilà dëkk mm-hmm. di nuyu population Grand Yoff gépp du ma cité quartier yi parce que temps bi xoj nañu may ziar ñëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp li ma fi wax nag bu ma juumee ku ci gis sa bopp nag ma baal àq Euh, rafet rafetal rek moo ñu tax ñu toog ak leeral mm. waaw donc euh, may sant ñëpp di di di di gërëm ñëpp daal kontaan ci yow Zeynoun voilà euh, lan ngay tàggatoo aussi voilà donc maa ngi leen di remercier si émission bu am mm. niveau bi mm. donc di kontaan si li ma fi fekk sama mag Lamrana mm-hmm. donc di nuyu suñu acteurs yi mooy suivre yëpp ñoom Aliou Cissé ñoom Meka maa ngi gis seen ay messages donc di wax ne fête de fin yi daan na gën a neex pour ñun les ah acteurs musique Mm-hmm. di leen masawu. Mm-hmm. donc nous avons annulé des dates très importantes. Mm-hmm. di masawu ñëpp di leen wax ne rek. ñu joué de. voilà donc ah, euh, ñu joué de. voilà ku <laughs> bëgg a joué rek. nga fexe autorisé nga joué. Euh, suñ la autorisé wul tamit nga bañ a joué. donc di wax ne di sant président la République nga xam ni mi ngi ñuy suivre di ñu bàyyi xel. yëkkatiwaat deux milliards cinq cent joxaat ñu ko. Mm. nañ ko jéem a utiliser euh, anam bu gën a rafet. Mm. di suivre évolution feebar bi nga xam ni su kaay wàccee rek. Mm. mun ñu bàyyi ñu liggéeyaat. incha allah jëf merci beaucoup. Péex looy tàggatoo. Alaaji ah. Mbay ah di ji Yves di la wax na yàlla yàlla defal jàmm gone bu loxoom setee mën na bokk ak ay mag ndab rafet judd nag boo ko doon jaay ba romb golo da nga ko teggi hmm. ndax bàyyi golo ndey golo maam golo tantay golo lépp golo ah. na ji koy rafet ah. di mën naa jugoon ci loolu mën na ne mbay lan la ay waay bàyyi sa bàyyi gis nga saa yi lu mu lay te nag Moussa Moussa Dabo Suisse Goudou. moo ne Baye. tey la 24 mbay dama may ngir yàlla ko mu tàggoo ay mbay may ma. <laughs> ayca vas-y. maa moom dina mel ne ngoon ci kër gi. <laughs> tey Moussa hmm. hmm. dama ba hmm. bëgg nga sol lii. Baye Mbaye Péex. kii moo ko fi a tey Moussa Dabo Suisse <laughs> Gold. moo ma génne fii. mais daal di sumal leen ma sumal leen ma daal di sumal leen ma. sumal ko sum ko sum ko. sumal leen ma. su ma leen ma daal yi bas tuus tëri kalo kër mbay Fall waxuma la yeel yi daal di laa la wax li may sumee sama yeel tëri <laughs> moo génn fii bas tuus sama xarit sa xarit moo génn fii tamit moo génn foofu bi ñëwal basa génn ci ñaar yëpp basa génn ci ñaar yëpp waaw bi tànk dulaat bi kon da koy gaañ kon da koy gaañ merci beaucoup waaw wuy ma di suwete <laughs> sama jabar sama lépp bëgg ma lool du ma tudd tur d'accord waaw ma xam na kontaan ci yow. ak jaara ak jaara. jaara Fall di leen souhaité happy birthday tu ñoo bokk kër. dasi ba ñoom ñëpp siyaar naa leen gërëm leen di nuyu àddina yëpp moom da la mit nga ca Touba uh-huh. siyaar naa la si sa cam nuyu naa la Assane bi tey réjubile nga xelli ataaya balaa ñuy jóg mbay nga nekk ci réer rek mbay ayca d'accord merci beaucoup Astou mbay lan la euh, Astou euh, lan ngay tàggatoo ah, man di ah leen sant di leen gërëm ci invitation bi DTV. Mhm. Euh, di leen ñaan yéen ñi nga xam te ne yéen lañu invité woon dégg naa seen waxtaan trop te kontaan naa ci. Mhm. di ñaan rek li ma fi dégg yëpp daal mbooloo mbooloo mhm. laay ñaan Sénégalais. que ça soit artiste comédien bi que ça soit artiste musicien bi. ñu mbooloo defal Sénégal ndaxte loolu yëpp pour kafagree la. booy déglu musique pour neexal sa xol la. booy seetaan théâtre tamit pour neexal sa xol la jot na tey ñu doon benn. xeex li ñuy xeex Sénégal jëm kanam waaye maa ngi sama yaay. suñu waa kër di nuyu waa Thiadiaye ndax man Thiadiaye laa dëkk Thiadiaye laa bokk maa leen di hmm. nuyu bu baax di nuyu sama mag bi nga xam te ne moom laa bàyyi si kër gi ummi hmm. di nuyu ñëpp di leen dox dig daje xëy na si yeneen incha waaw incha ñu woote waaw. Italie États-Unis ñu woote ñëpp ak biir Sénégal ñu hmm. woote ñëpp il faut ñu sant leen gërëm leen. parce que bu yàqee seen ne ak ñiy seetaan. Rapacha. Rapacha waay koy ziar suñu grand boobu macha allah. waay gudd yëpp quoi. boo xamante ne. nee na dafa fàq. fàq waaw xale la bu ndaw la fàq ñu am ba léegi. mais nee nañu dafa fàq Zeyna fan la fàqee ci ban kii lañu wax. internat Kër Massar ci benn internat. Kër Massar ci benn internat photo bi dañ ko génne depuis jeudi passé xale baa ngi nii. Mm. ah dafa fàq ci benn internat ah, waaw ñu ñu ñu déglu ma joxe numéro téléphone bi. Mm-hmm. parce que lii c'est sérieux quand même Mbaye ah. Mm-hmm. <laughs> mu ngi noonu dafa fàq ci benn internat. Mm-hmm. boo xamante ne Kër Massar la nekk. ñu ngi koy war gisuñu ko. jeudi passé ba jeudi passé la la la ci internat donc ñu ngi ñaan képp ku ko gis mën nga woote ci numéro téléphone yii wala bii 77 662 46 54. 77. 662 46 54. alors